mbokk yi sëriñ Abdul Aziz Diaw di ku ñëpp ràññee ci wàllum ñaan yàlla boroom xaalima gi du laal suuf macha allah laal leen bant xam-xamam ak gëstoom ak ragal yàllaam loolooy li sabab réew mi yépp ak bitim réew jox ko bopp ay li ko wut xam-xam jaral gëstu xam-xam daf koy jaral dem fépp ci biir réew mi ak sax bitim réew daanaa leen wax lii di sedd li saxaar Afrique moom gisuma ku ko ci man Serigne Abdoul Aziz Diaw ni ma bu maa ngi feeg mbir mu yéeme sax ah waaw lan la mu ni ma xanaa li ñuy wax xorom si lan mooy njariñu xorom si mu ni ma bépp diggante bu yàqu bépp diggante bu ñagas xanaa dafa fekk amoo ci xorom si waaw secret bu doy waar la ci boole Serigne Abdoul Aziz Diaw mooy borom rus na maa xam nit ñu di ko jàpp ci gàllaaj rus na maa xam nit ñi di ko néewal doole ci xam-xam sangatu bayre moom benn la ci Afrique lépp lu jëm ci muslaay kaaraange dawal seeti Serigne Abdoul Aziz Diaw ma nga fële ca cees ca quartier ba ñu duppee Serigne Abdoul Aziz Diaw yow mi lijjanti ay kayit mu tëla gàllaaju kër xale bu të ay mbokkam bu lu jëm ci wàllu plante kenn mënu ko ci ci réew mi ndoxum siti góor gu néew kattan hémorroïde jigéen guddul yëg bànneex Serigne Abdoul Aziz Diaw mi ngi ceeg lu yéeme sax yow mi bëgg a jokkoo ak moom 77 571 87 63 wala 78 469 92 92 waxoon naa leen ni leen bu ngeen deeti ñaan yi nit seeni mbir daw leen seeti ku ragal yàlla te am xam-xam Serigne Abdoul Aziz Diaw moo ma ci doy su ngeen bëggee dégg dëgg daal Serigne Abdoul Aziz Diaw ku mel ni moom ci Afrique benn la fi. mbokk yi ñu euh, daal di dem euh, ci liñ ba li ñuy doore muy Assane Alaaji si Lamine Niass xam naa Modou dana wane fotoom àdduna yëpp xam nañ ko sax tey jii lañ koy war ginnaaw bi ñu dëddoo juróomi at ci tey ñëpp ñu bari ñu ngi dal ñu ngi dajaloo fii ci buntu euh, solution Walfadjri te ngir fàttaliku jëmm ji nga xam ne def na lu nekk ci presse Sénégal def na lu nekk ci diine l'islam waaye dem na fu nekk ci Afrique ak ci Europe bi ngir Sénégal yóbbu couleur bu islaam ak couleur diine ji ak li nga xam ne mooy couleur réew mi. waaw xanaa sant si yàlla bu baax rek <clears throat> ñaanalaat ko bu baax a baax suñ boroom euh, xare ko àjjana te seeral ay yaxam te njaboot gi mu fi bàyyi. yàlla sàmm leen teg ci loxo ak groupam bi yàlla sàmm ko teg ci loxo. ak it euh, gërëm bu baax fans club bi si initiative bi ñu amee euh, daal di taxaw di ko ñaanal si région yëpp ak bitim réew. ñu ñu koy si ñaanal ànd si ak njaboot gi ak xarit yeeg am di jàmm yi. ak mm-hmm. Sénégal yi bëgg lu baax lépp. Mm-hmm. tey ji ñaanal nañ ko nañ continuer rek di ko ñaanal loolu daal la ñuy wax yal na ko sunu borom jéggal. sunu borom xare ko àjjana. Mm-hmm. te Sénégal yi bëree bëri fexe roy ci moom. ci ci nekkin ci wëlóor ci xam-xam loolu daal bu amee dana baax loolu son yi. keroog jame dama la dégg nga wax kàddu gu am solo maa ngi koy wax léegi ci rajo bi. nga ni ay jamono daanaka da nga da nga da doon déglu wala yaa woon ci boor bi nga xam ni. des fois dañ doon wax Sidi yoo xam ne sax xamuñu ko ci moom. Sénégal gépp Sidi saa yu génnee ñu ni. Mm. wax ja bari na. la muy mm. def la muy nàngam. Mm. nga ni nag ñooñu tey ñoo mujj sax naan ay bu fi nekkoon. waa waaw dëgg la ndax man wax dëgg yàlla lu mu daan wax daw ma siy bàyyi sax xel ndax man dama daan yaakaar ne politique la jamono Ablaye Wade ba si ni Macky bi ñëwee. ba si mbirum Idrissa sekk mi damaa taxaw opposé si woon. ok waaw lu si bëree bari daa ma ne Idi ngi koy woo dafa war a jël Idi wax ak moom waaye jurut dem si antenne bi ak yeneen yeneen. Mm-hmm. yooyu yëpp dama see dama mosuma see ànd ak moom daal mais après mhm. bi mu demee nag si lañ doog a xam ni grand tom dem na. Ah. mais bi mu fi nekk nag wax dëgg yàlla ñun bokkoon nañ si ñi nga xamante ni ànduñu woon ak moom. ci bëri na si nag bëri na Sénégal yoo xamante ni ànduñu woon ak moom mais duñ ko nangu. Mhm. buñ ñu taxawee sax di wax seen diggante moom da xam ne diggante bi diggante diggante boo war a taqale la pour jox ko askan wi loolu nag duñu si fekk ñun dañuy wax dëgg gi te yàlla tax te ndax téewut ñu xam ne fi ñu toll nii mhm. kuñ ko gën a bëgg amul ku kuñ ko daa dàq ñaanal amul waaye nag bi mu fi nekk bokkoon muuru seeni bët waaw ci jabolise ko waaw ba nga gëmoon ni lii mu wallaay wallaay ba woote bi mu woote woon fii tooy yëpp pour ñun la woon suñ njariñ la woon te an dem ma sa woon sax ànduma ci woon sa boobu amoon naa possibilité pour dem fa ndax li ma doon def bëriwul Mm-hmm. baat bi nga wax léegi neex na de possibilité. mais mm-hmm. bii moom jekku nga waaw jekku naa ko waaye du ma si demaat ndax ma si demaatee mën na maa juum. <laughs> jërëjëf euh, euh, mi ngi noonu xam naa ci kanam sax takk soo jombul dinañ ko ci ubbi law laaj ci yaatu. Euh, alaaji yow nga nekk koo xam ne maa ngi koy wax léegi ci rajo bi nit nga koo xam ni ki ñu gën a xirtal ci si lamin ci nga bokk. wala bu ñu ko daan déggandim bokk nga ki tax ñu gën koo xam maa ngi wax léegi sax nga di ma jubbandi ci waxin wi que ni ah kay xamoon nga Sidi mais xamuñu ko woon ci jëmm dañ ko daan dégg rek ab liggéeyam lañ na woon di ko gis yu bëree bëri nag bi ñu la jigee nga tax ñu gën koo xam loolu sabab ne bi ñu ñëwee fii wal fajiri lépp luy tax kër ga dox yaa nga ca bu dee publicité nga daw yóbbu fa defe naa tàkk soow ak euh, boutique la solution lu ci nekk ñaari produit la yu bokkul yu bokk nga yóbbu leen ci ñaari émission yu bokkul yu ci nekk nga yëkkati xaalis dugal ci kër gi ngir jàpp ci doxinu kër gi parce que mënoon ngaa dem ci yeneen média waaye loolu doyul bi ñu ubbee fii nii ñu jël cër bi dellawaat ko alaaji Sidy Lamine Niass bisam bii di la kaati ita saa yu ñëwee nga yëkkati enveloppe bu duun teg ko ci loxol fans club bi nga xam ni ñoom it saa yu bisu Sidi bi ñëwee ñu bàyyi seen i kër bàyyi seen i lal bàyyi seen liggéey ñëw taxaw ci buntu rajo bi ngay wax ni leen kat du ngeen ma ëppale ci Sidi am lii kat defal leen ko ci li nga xam ne moom mooy bis bi waaye loolu doyut ngëm-ngëm yi Sidi amoon ba tax na ku dugg sa bureau gis photo Sidi ak Serigne Sidi moom Serigne Abdoul Ahad Mbacké di ñaari Sidi yoo xam ne ku ci nekk am na loo làmboo daal di koy kër gi kon mu mel ni ba léegi idée Sidi Lamine ngay doxee loo gisoon ak loo yëgoon nag lan nga doon dund ak Alaaji Sidy Lamine waa waaw jërëjëf sama bu euh, kii kii bi rafet la rafet na lool sax macha allah. Mm-hmm. ni nga xamante ni doon nga. <laughs> noonu nga expliqué rafet na ba ëpp sax macha <laughs> noonu la demee nag. <laughs> rafet rafet na ba ëpp. Eh. waaw doon defe naa ni sunu borom moom dafa am daal loo xam defal na ma ko ci ñi tudd Sidy. Mm-hmm. <laughs> Sidi Lamine ak Serigne Sidi bu Serigne Abdoulah waaw waa xam nga Sidi Lamine moom mm-hmm. macha allah eh, <clears throat> nit ñu bari eh, comprendre luñ ko woon man loolu du ko wax peut-être ñu mel ni ñoom Assane ñi nax nañ leen mm-hmm. waaw ñi leen nax nag eh, dafa am yuñ daan teg yoo xam ne ci lañ daan jaar pour nax maanaam dañuy juger Sidi selon ñoom seen melokaan parce que dugaloon nañ ci bopp nit ñëpp ne waa ji njariñam doo nga ko tax a jóg hmm. te ñi daan dugal ne njariñam ko doo nga ko tax a jóg tey ñi ngi nii seen njariñ képp lañu hmm. fi nekk dëgg la kon ñoom ñoo nekkoon ci seen njariñ hmm. mu mel ni Sidy Lamine moom euh, defe naa ne bu fekkoon ne ci njariñam rek la ne euh, Walf romboon na fi dem lu bari li ko ko xañ euh, taxawaay bi nga xam ne moom la am jëmale ko ci ñi nga xamante ne bi ñoom lañ ñàkk a jox kàddu moo tax ma waxoon la sànq ne la peut-être ci sama dund. bu ma continuer ba tey nekk ci média di wax yàlla dafa def ma daje ku mel ni Sidy Lamine Niass. Mm-hmm. parce que peut-être bu ma daje wutoon nag ku mel ni moom ak man ni ma bindoo. li mm-hmm. nga xamante ni bii noonu la samay xalaat ak samay gis-gis ak samay ni may ni may li may def nga xam ni. Mm-hmm. am na yu bari yoo xamante ni bii mënuma ko. kon bon peut-être du ma ci yàgg. wala du ma wala du ma ci sori. parce que boo seetee am na yu bari yoo xamante ne bi laataan may tàmbali mhm. euh, jaanaaf ne da ngay gis ni milieu showbiz bi dafa nekk milieu boo xamante ni mhm. euh, du caagi ni dangay mën rek dem mhm. mais dafa nekk loo xam ne maanaam da ngay mën ba noppi topp ci di siboor loolu dafa bari ci li nga xam ne mooy millier bi donc nag man dama jàppoon bi may soog a dugg dama jàppoon ni mbir mi moom mën la rek su dee mën nga rek mën ngaa dem euh, mais ndekete dafa am yeneen. waaw moo tax bi ma dajee ku mel ni Sidi Lamine. moom mu gëmloo ma vraiment leneen loo xamante ne bii euh, peut-être man gëwuma ko woon sax ci sama bopp. waaw gëmloo ma parce que man Sidi bi mu ma njëkkee wax ne ma. yàlla ne yàlla buy maye nu ne lay maye maanaam yàlla buy maye day xëpp. maanaam peut-être loo xam ni moom dafa ko gisoon ci man. daal ne am na loo xamante ne bi daal ne li la sunu borom defal defe naa ni peut-être ñoom Moodu mi yàgg dañ ko dégg mu wax wax ju mel noonu. mais yooyu. bi ma ko waxee dawa dawa da ba lan la yàlla bay bay. li sii di wax ko waxee dawa. ne ma dimbali ma garaat lii la dara mayu la dara loolu loolu la wax comprendre nga mu nga gis euh, vision bi nga xamante ne moom maanaam daf la gëmloo woon. daf la gëmloo woon sa bopp loo la ne la yow maanaam ku kawe nga ku kii nga maanaam dafa am yeneen yoo xamante ni daf ko def ci yow quoi. Mhm. loo xamante ni bii wax dëgg fa yàlla. Mhm. le fait que ku mel ni siit Lamine ak man tamit fi ma ko yóbbu moom. Mhm. mu am yeneen yoo xamante ni bii day gis ni par exemple yow suñu borom may na la may boo xam ne may si la lu ma mës def maanaam théâtre bu ma tourné théâtre démb ak tey bi ñu mujjee tourné bi ñu tourné démb ak tey bi mu gisee annonce bi da ko doon wër bi ma ko envoyé da ko doon wër di ko wane sii di pour moom lu ma def maa fi man ah. ci wàll bi nga xamante ni moom laa man moom laa ne maanaam loolu mooy li nga xamante ni moom la ma jàppee woon wóolu ma wóolu boo xamante ne bi wóolu bu extraordinaire ci domaine bi nga xam nag ci laa nekk parce que ku ci ne mhm. bu la waxalee digganteem ak Sidi ni nga xam ne fa la ko tegoon mhm. ku ci mel ni Modou ngi nii Modou Diouf Modou Diouf niveau technique bi ko di yóbbu peut-être moom Modou sax yóbbu fa boppam ah waaw est-ce que mais am na lu bari loo xamante ni bi tey moodul leer na ma ni am na yu bari yoo xam ne mi ngi koy def mhm. bu amutoon ku mel ni Sidi du ko def ah, da ko ubbiloon maanaam non da lay gëmloo sa bopp dem nga da nga day dem ñii ñi nekk nii maanaam si di xam na système bi ni muy doxee. Mhm. xam na ni am na yu bari yoo xam ne ay lobby la rek. si comprendre nga. Mhm. mos nañ def benn émission théâtre ñuy wax euh, mais bi ma génnee daf ne ma. Mhm. li nga li nga leen wax lépp noonu la. si ne ma gars yi seen i kii rek la ñuy def seeni i lobby. la ñuy def te effectivement loolu mooy li nga xamante ni mooy maanaam. malgré que ni am naa ku mel ni Sidi peut-être di def si émission di def comme ni nga xam noonu laa ko def mais boo seetee émission bi nga xamante ne moom laa doon def. émission bi dundut. parce que bu fekkoonte ni intérêt. Hmm. parce que émission bi dundul dundul émission bi dundul lan mooy émission bu dund mooy émission bu am sponsor. waaw boo xamante ni bii mi ngi kii mais émission maa ngi koy def nit ñaa ngi koy seetaan nit ñi xam nañ la. Hmm. mais amul sponsor. kenn mosu ko sponsorisé. ok. comprendre waaw mooy kii bi nga doon def. neppaat neppaat bi waaw. comprendre et pourtant mi ngi mi ngi doon dox. si di dem. Mhm. mais nga gis ni émission boobu euh, amutoon sponsor. après finalement defe naa jooni jooni. jooni jooni ñëwoon na sponsorisé ko ak mhm. Bougane. Mhm. bon bi mu ñëwee sponsorisé ko après jooni jooni man je moom laa. jox la nga xam ne moom la jox moom xam na. li nga xamante ni bi yow tey euh, li nga xamante ni bi mhm. tey mhm. moom ngay def li muy jar valeur bi nga xamante ni moom la ko jox soxlawut mhm. que ni ne sponsor am na wala amul mais maanaam dafa xam ni kii li muy def neex na waaye dañoo nekk ci réew moo xamante ni faw mu am noo xamante ni bi noonu la yëf yi di doxee pour mu mën a dox maanaam sii di romboon na fu bari foo xamante ni fii gars yi dañ ko fa doon séentu yaa ngi junj léegi lu jëm ci wàllum euh, euh, kii bi maa ngi dégg Modou di ko wax sax ci émission bi passé mm-hmm. euh, ajjuma te yaa ngi ci rajo bi mm-hmm. muy président Sall keroog bi ko gars yi joxe ni moom moo gagné ba wane ni moo gañe mm-hmm. avant muy def passation de service sax Sidi dafa am kàddu yi mu yëkkati woon waaw te yaa ngi ko doon fàtte ci mu nekk mu nekk lu am solo gis nga Sidi dafa jël ay dafay jël ay décisions yu impopulaire maanaam bu ko jël maanaam Sénégal yëpp dañ koy mere mais terewut loolu mooy ngëm-ngëmam gis na loo xamante ni peut-être ñu bari gisuñu ko. waaw mhm. ah. ci jamono ji mu koy wax nag ñëpp ay noonam la ñuy doon. Cheikh Sarif. Mhm. si dafa taxaw. waaw ah. wax ne lii Cheikh Sarif def parce que dañoo tuutal sunu daara yi. Mhm. wallaay wallaay Cheikh Sarif dañu jëli benn xale bu nekk fële ndekete am na ay xale yu ko mën fii ci daara yi. maanaam ñi ko indi mel ni xamuñu daara tuutal daara. <laughs> yëkkati xale bi ca kaw a kaw. siit ne lii bu ngeen duggee ci daara yi am na. am na ci sunu daara yi. xale yoo xamante xale yu am nangami at mokkal alxuraan. wallaay dëgg la lu tax ñuy jëli loolu di ko jëli ji. Ah. Euh, ba Tanzanie. Hmm. ñëw di ko indi. wallaay daal lii ay tappale la. Hmm. comprendre nga. dëgg la dëkk bi yëpp mere ko. moo démasqué waa ji de. jël xale bi. Hmm. <laughs> xale bi mënta tari bisimilah. <laughs> non c'est sérieux. dëgg la de sa comprendre nga mais dëkk bi yëpp. <laughs> topp benn. Euh, xam nañ ni mënta tari bisimilah de. Ah. mais nanguwuñ koo wax. waaw. <laughs> parce que masse bi yëpp ànd nañoo xale bi. si si si dina mënta tari bisimilah ñëpp mere ko. waaw naan déggal rek li muy wax. dañ ko répété li mu doon wax ah, rek. xale bi ñu jël ko yóbbu ko ci président bi yóbbu ko fu ne muy wëndeelu. wallaay wallaay ah? donc Sidi xam na daara xam na li ci daara. àddina di dox ba jamono jox ko dëgg. Mm-hmm. ñëpp xam ne li si Lamine doon wax dëgg la. wallaay si Lamine taxaw fii ñu fal président Macky Sall nga xamante ni bii ci bis boobu ngoon googu. mooy ki nga xamante ni bii moom la sénégalais yi ëpp jox bopp. sénégalais yi di tàcc fu ne di taxaw di ko wax dëgg. bul ñu ngi lay tuumaal lii ñu ngi lay tuumaal lii ñu ngi lay tuumaal gaay yi ne may kii yeboon waay. kii nag moo iñaan kii moo soxor. wax ko wax ju ne rek kii di soog a falu. maanaam euh, gouvernement pare na pour encaisser. ak njabootam di dégg ay doomam di dégg ñi muy liggéeyandool di dégg. ñu koy dal ci kawam. ba ñoo xamante sax peut-être mën ngay liggéey ak moom sax ànd ak moom bokk moom gis-gis nga dal ci kawam. mais pare na pour encaisser loolu mais pour wax dëgg-dëgg li nga xamante ne bii moom la gis. ñu dawal ay at si jóge na fi. Sénégalais yëpp naan li ñu si Lamine doon wax a ngi. li mu doon wax a ngi li mu doon wax a ngi li mu doon wax a ngi nii. Idrissa Seck ba mu waxee li muy wax ci pénc mi. ba mu ko waxee ci pénc bi Sidy Lamine jóg pour tontu ji ko mu bëgg ñu regle mbir mi ci mm-hmm. suuf. looloo tax mu bañ. ci penc mi la waxee. ci penc mi la koy tonto dëgg la bu ko defee la nga xam ne moom la li mu wax yàq ci penc mi mu régler ko ci penc mi mais bu fekkee dafa ko jël téléphone Assane ci jamono jooju. Mm-hmm. du baax du baax waaw. xam nga mënoon na ñëw wax li muy wax ba noppi euh, bañ a tudd sax ne jokkoo naa ak moom téléphone. Mm-hmm. mais honnêteté taxaw na jàkkaarloog Sénégalais yëpp ne woo na ma téléphone. waaye ci fii la ko waxee fii laa koy tontoo. te mënoon na ko ci bañ a fekk am na ñoo xam ne bu doon ñoom la duñu wax loolu. dëgg la moo tax xam nga après nga ne mënoon na koo jël. si du ko jël. parce que dëgg dëgg li mu wax noonu la. walaay walaay am na position yoo xam ne si da ko doon jël. macha allah mu nekk ay position yoo xamante ni bii tey moo tax nit ñi naan bu fi nekkoon. parce que xam nañ ni bi fi nekkoon am na doxalin yoo xamante ni bii moom. soit da nga koy jël tëj ko ci kaso bi. Mm-hmm. waaye moom moom du dund di dox fii. Mm-hmm. ñu ne bu leen doxalee nii bu leen def lii. loolu moom kenn ñemewu ko wax. waaw dëgg la de waaw. da ngay da koy jaay doole ba ñëpp yëg ni jaay nga ko doole. Mm-hmm. mënatul mënatul a def dara parce que mën nga ko ñëw yóot tëj ci kaso bi. Mm-hmm. ba noppi tëj teleem. Mm-hmm. waaye muy nooy. télé bi di doxee neneen. way laa nga leen di jéem a nga koy jéem a napp napp yii. dana woote ay manifestation bi mu ko fi waxee fii Abdoulaye Wade ministre yi yëpp daal ne du fi am mu ne dana am. ñëpp di ko kii. mu ne dana def ci place de l' indépendance def la muy def jour boobu sii ma nga fanaan hôtel ba la fanaan parce que bañ na rek ñu xëy di ko kar fanaanut këram xëy na cëpp na lay donc vraiment nit la koo xam ni yàlla na ko suñu borom dolli yi ay yërmande dolli ay leeram mais en tout cas nit la koo xamante ni ki vraiment am na lu bari loo xamante ni bi def na ko ci képp koo xam ni mm-hmm. jaar nga ci moom macha allah am na solo yaatal bi leneen li ci des mooy yu bari des na dana ñëw ca takku soo bu àndeek dogalu borom bi xam naa ni moom tabarkalla tabarkalla dana gën a dana gën a neex foofu mm-hmm. en tout cas ñu ñaanal ko rek yal na yàlla yërëm ko te yokk ay leeram amiin euh, dolli euh, doole ak xel mu sell njabootam gi fi des mm-hmm. ñu ngi nuyu Cheikh di ko ndokkeel ci yan bi di nuyu Oustaz Assane ak euh, njabootam yépp ñu ngi leen di nuyu